Gaston Production le Don King de l'arène sénégalaise nee na le premier janvier Balla Gaye à Boy Niang le face to face Guédiawaye Pikine waa Guédiawaye ne ñoo yor lamb ji waa Pikine ne ñoo fi teg tànk waa Guédiawaye ne Balla Gaye 2 ñoo la yabal Pikine dugal Pikine Balla Gaye 2 jaar Ikotaf Balla Gaye 2 jaar Balla Gaye 2 jaar bu mag Balla Gaye 2 jaar gars yi naan ko Balla Gaye 2 dinañ la tëbali gars yi naan ko déet Balla Gaye 2 waa Boy Niang dàqi ko waa Ama Baldé ko ma ne le combat du premier janvier. Pape Boye tàggoo na ci émission bi ñetti yoon na pour bëgg génn seetaani match bi fi may jeexale yow le premier janvier seen adversaire dem na France waajali boppam nee na saa yi moom jot na ginnaaw am na doole am na mystique lépp mu dem jàngi adversaire bi nga xam mooy Balla Gaye numéro 2 ñëwaat ci réew mi. ah lool moom dëgg yàlla su ma ca amee ma dëgg man ñoom la rek moom ñoo xool peut-être dañu manqué waaye daal Balla Gaye moom yal na yàlla gën a mottale rek. c'est le premier manqué wu dara. c'est le premier. yàlla may na ko ko. dara jàmm yàlla may na ko ko. te ko xamoon Balla Gaye ci guddi delluwaat bu tuuti. Hmm. foo ko tey. Hmm. xam ne change na baax a baax a baax. bu dee yàlla nag day fay coono wala les yi yàlla na ko may def. ci combat bi da cee daj lu musul daj wala. xam bu dee yàlla day fay coono. Mhm. wala les yi yàlla mën na ko ci may def. Mhm. xam nga bi préparé combat dañ lay woo naan la. Mhm. waaw. lii la ñuy waaj def. mais xaaru ci dara. di ci profité di sant bu baax Aziz Ndiaye. Aziz Ndiaye Baye ji. borom bi. kër si gii. ma koy sant bu baax Lamine Golo. Mm-hmm. parce que tamit bu dee taxawaay bi nga xamante ni ba tax na Balla Gaye ñu bëri xool ko xam ni kii changé na. Mm-hmm. mooy mm-hmm. allah seen adversaire bi ngeen di bëreel aussi tamit dañuy dem géejawaay eh, di moins speaking di fa dégg ay rumeur ku ci mel ni Cheikh Niang ku ci mel ni Pape Sarr. ci mel ni Père Xës nee na ngeen fexe ba premier le premier janvier ngeen bëre mu mel ni ñoom dafa am lu ñu xam loo xamante ni ngi géejawaay. ba loolu de dëgg yàlla ñoom ñooy wax. nee na premier janvier na ngeen ñëw de. waaw dëgg ñooy wax loolu rek. déggoo leen fi Balla Gaye feebar dégguñu fi ak euh, promoteur bi tawat wala moom benn kanam ba tax làmb ji fomm. Mhm. ñoom kay li ñuy war a wax mooy yàlla nañu may ñu yegg ci jàmm. la mm-hmm. première. Mm-hmm. jàmm rek a mat a ñaan. amiin yàlla na jàmm am ci diggante bi. Ah, waaw loolu daal na jàmm yéeg ñu mottali ko. Mm-hmm. yàlla suñu borom mottali yéene bi yàlla bàlla de yàlla may ko ndam. man loolu mooy suma mbëggal. loolu mooy suma wax ci ñoom. parce que dafa am ñoo xamante ni peut être dañoo mën a wax am ñoo xam wax am ñoo xam ne xamuñu wax yi ñoom seen communication dañ leen a réeral. réeral maanaam ça veut parce que ñoom wax jooju man dama ko doon dégg de. mais ay réeral lay def. <laughs> yegg si na. parce que damay toog rek man xëy na ah, ah, ah, waaye day dëgg yàlla. Balla Gaye mi taxaw barki démb ak seen adversaire. ah. ba tax na ñoom ñu dagal ko visa dawal yóbbu ko. ah doole du doy di xaalis du doy yoo xam nga ne xaalis du doy. dafa am làmb boo xamante ni boo fa tolloo da ngay pare. da ngay pare. doo waajali. ah boo ñàkkee daa dem defi finition xanaa. waaw dama ne la. dafa am foo xam ne boo fa tolloo. waaw da pare. ah doo pare ji. adversaire bi taxaw keroog ñu ne moo leen ëpp doole. kat ma adversaire moom booy ñaan ah dañu gis suuru si ñaata bi ci suba si ñëpp naan Balla amul doole booy ñaar xale bi bi mu ñëwee démb. waaw d'accord li ma dégg li nga dégg bokkul. kon nag réeroo am na. <laughs> allah dañ ko seeti woon këram moom Boy Niang parce que Sa Thiès boobu ba yaa gën a naqaree jot kenn mënu laa jot kenn mënu laa gis xam naa ne combat bi moom bu dul gasoo production. <laughs> gars yi fi mu ne dina la mere parce que kenn ku nekk. nee na meeru Géejawaay rek moo ko dese fii biir Géejawaay moo ma ko wax ci gémmiñam ma dégg. booy ñaa nee na meeru Géejawaay rek moo fi dese parce que yéen ñëpp am na fu mu jaar ak yéen daan na coach yi daan na yenn communicateur traditionnel yi fi nekkoon moo ko wax. daan na la yow daan ay kon daan bii saa Kajoor ñoom Marle mu daan leen ba pat ñoom Fadam moo wax loolu noonu daan guy geeg ñoom ñëpp mu daan leen. nee na maire bi moo ko fi dese. domaine moom du ci wax ndax fekkewu ma yëgu ma ci ci ay wax rek laay dégg. ok man ci làmb arène bii laay wax waaye man dama koy ñaan rek. Hmm. li mu bëree ak Lac de Guiers. waaw ah. bëree ko ak Tapha Tine mu bañ ko bëree Boy Niang bañ ko nañ jël seen matuwaay. Tapha Tine barki démb damaa déglu mu wax. ci moom. waaw open presse Ndiaye Tine. foofu maa ngi fa maa ngi fa. dèjà li mu wax nee dañ ko war a fàq jël yat duma ko. ah gis-gisam. la moo lan ko andi. lan moo ko andi. ok moom nee na muy bëreeg moom déplacement latéral la doon wax. waaw cinq cinq gis nga ndaw boo nekkee boo nekkee ndaw nga am nga doole bu signature jotee boo waxee ñëpp dañ lay abisible ba pare sa say supporter sax di la saaga loolu amul sens bëri wax nag bëri jëfa ko gën ah pourtant nag jëfkat la de combat bu nekk na ngay bëri bëri wax bëri jëfa ko ma ñu dafa bëri wax de man sama bopp laa xam ak sama moom bi nga xam moom laa àndal sax juda yow da ngay kàll waxi wolof ngay wax waaw tey tey moo ko mën man sax ni moo ko mën du ma ko fi damay ñaan yàlla yàlla mooy ko ndam. Hmm. parce que ku xam ñoom ñaar lu ñu fi def rek doo leen tëkkale doo doon doo doon doo leen naataat. ah mais garab nag ci kaw lay fekkante kon mi ngi mel nga xëy xëy war a bëri am na de. waaye taxul garab garab bi car gu ma am garab bi am na caram car yamuñu. saa tees. bii am na car yu gudd bii am na car goo na ba sax foo xamante ni yoo te kii am na car caram fii la yem. ñu nag dañoo carcarale <laughs> carcarale <laughs> macha allah Salim yaakaar naa ne ma bàyyi la nga tàggoo ñu wax la duñ fexe loo rek <laughs> mm. euh, lu lu baaxul la mm-hmm. wala lu dëng rek ñu jégal ñu bu fi dara baaxee tam ñu xam ne ci yàlla la mm-hmm. euh, di ñaan rek Balla Gaye yàlla may mm-hmm. ci kaw booñaam ci kaw ëmb ma ndam ci kaw ñu ñu yàlla may leen ndam bi de balle. ñaar ndaw papa boo jëlee. loolu doomu doomu mooy dara. muy lan da fekk ni euh, waa Kër Fallaye. ndeysaan donc loolu moom mooy dara. waaw waaw waaw. parce que mbokk ak xarit. Mm-hmm. dafa dafa waar. Mm-hmm. loolu da nga ma sonal mais du weesoo loolu bi nag moom ñu ngi pare bi. cey combat bi mais nag bu ñu weesoo loolu. fexe leen ngir yàlla bu la ñu fii naan. ah waxoon nga luy waxoon nga ñu lii. man kay fi man de man damaa gis ci yow. boo moytu du neex sax. boo moytu du neex. allah amul koo fàtte. te dama la koy amul ko ay ñoom ñoo fi teg booy. ma fit ma spécial. Pape Boubou da ngaa bàyyi booy yow. rek rek laa lay booleel. moom yàlla dañoo boole. Mm. dañoo yóbbu ay Sinal Badara. Mm-hmm. commissaire xam nga ñun ñëpp. <laughs> mu fi nee na combat bi 4 millions lay teg ak oto <laughs> moog seex bu rek rek ñoo war a teg. moom laa ci gën a yërëm moo fi mu dem seex yooyu mënu ko denc. kan seex. waaw waaw seex nan de bàyyi ma yow. nan nan teg jóob kat lay jaay. kee moo gën a cher lay pièces moo ko pay bagage. ñoom ñaar ñëpp sax la ñuy jaay mu fi dem naa place c'est vrai yàlla may wax nii wax la yàlla soo dee boo ko mën naa suñu bu fi eh. yéene gu ma am ci man hmm. yàlla laa ko doyloo ndeysaan barke alxuraan hmm. xoolul dara dara dara dara lu ma métti bëggul dara lu ma gaañ waaye maa ngi gërëm bu baax a baax waa Casamance incha allah maa ngi gërëm bu baax waa Kolda hmm. di gërëm bu baax koo xamante ni Sadio la tudd. Mm-hmm. Mm-hmm. di gërëm bu baax Jabel. di gërëm bu baax a baax a baax fan sa club Sakho. Mm-hmm. Sakho yëpp. Sakho famille. ñi fa nekk di ñuy jàppale bari na trop trop kenn ñu ne nii. jërëjëf Kolda Guinée. ba ci sama papa nga xamante ni ngi juddoo. li sax Mbaye wax ñu cosaanoo. ci ay cosaan. macha allah maa ngi leen di sant ñëpp bëgg maa leen tur. di sant suñu waa kër yooyu la onze lay bëree de. mbaa di nga ko jàppale ngeen. amiin waay ay amiin waay dee leen ma ñaanal sama turandoo. daa tombé naa ah, la déedéet ku la ah mais waaw bàyyi mbokk yi nii noonu ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax Sa Thiès yaakaar naa ne tey jël nañ ci temps lu bëree bëri bëri yéen ñuy suivre seen site internet Gaston Production comme ni ñu ko waxee dinañ topp ndaanaan yi nga xamante bi nii Père taxawal na seen combat ñu amal ak ñoom liggéey bi incha allahu rabbi dinañ dem. ca kër Reug Reug def ak moom noonu dina dem aussi tamit ci Balla Gaye def ak moom noonu Boy Niang waaye bu leen fàtte mbokk yi Forza bu leen fàtte mbokk yi ki nga xam mooy Franc aussi bu leen fàtte soq ak combat mag Marley 2 yaa aay ci luur ak soq doomu Pikine <laughs> soo ñu maa wax amin ak combat bi nga xam moo dox ci diggante mu <laughs> ma dugal ak <laughs> combat doon ci diggante Baba Jaxal ak Caati Ngéwél mbokk yi dans quelques minutes ma dalal leen benn ndaanaan dama koy topp interview mu bañ mais du génn ci kër gi tey damay xulóog moom Gaston Production le Don King de l'arène sénégalaise nee le premier janvier Balla Gaye 2 Boy Niang le face to face Guédiawaye Pikine waa Guédiawaye ne ñoo yor làmb ji waa Pikine ne ñoo fi teg tànk waa Géejawaay ne Balla Gaye 2 ñoo la yabal Pikine dugal Pikine Balla Gaye 2 jaar Icotaf Balla Gaye 2 jaar Rue 10 Balla Gaye 2 jaar tali bu mag Balla gay 2 jaar tali bu bees gars yi ko Balla Gaye 2 dinañ la tëbali gars nan ko déet Balla Gaye 2 waa Boy Niang ko waa Ama Baldé dàqi ko ma ne le du premier janvier